aywa Habib tey rek ñu defal découverte maanaam xam lañu ak fu ñu naan cité Sotiba. mu nekk ci diwaanu Pikine Ouest. Mhm. booy dugg Pikine cité Sotiba moom ngay njëkk a jot. Mhm. Fati mu nekk tamit cité boo xamante ni moom moo njëkk. Mhm. ci Pikine. Euh, atum 1975. Mhm. la cité Sotiba taxaw te mhm. ña ko sàncoon mooy ña nga xam ne ñoo doon liggéey ci société bi di Sotiba Simpafric. Sotiba Simpafric moom xanaa la daan defar ndima wala tissu. tissu la daan defar wax yi euh, ak lego si. Ah, mu daan ah, defar ndima. ndima mooy tissu. yaa koy soog a dégg sax. fara fara. Sotiba lan la Hmm? Simpafri. Simpafri so so Sotiba. Habib mhm. mi toog dem. non non non nuñ li ci liñ ci doon. Simpafri Simpafri simple ou bien Simpa. Simpafri Simpafri Simpafri. am ni ma ko doon déggee koy. dégg-dégg yi mais mais mais la la laajal Chérif ak ak ñeneen ñi li ñu waxee tissu. ndima hmm, xott damay dem xotti ndima. Hmm. loolu mooy jënd tissu. fara ñi may seetaan. waayoon lañ ci wax malheureusement. walaay dëkk ba wala Jolof xam nañu baax li may wax. Hmm. Euh, loolu nag euh, Habib yaa ngi koy wax ci élément bi euh, atum 1975 la woon liggéeykat yi ñoo ko sàkk woon. dem nañ sax ba am ci këyit loolu ñu naan titre foncier ci jàppandalul président Abdoulaye Wade duñ ci sori ñu dem seetaani élément bi. dellu si waat léegi léegi si plateau bi. 75. yéen a ngi ne. waaw. ngeen dëkk fii ci la usine Sotiba moo ko tabax pour ses pour ay ouvrière. constitution am c'était en 58. ad kii administration bi la woon. libération administration ñoo ko ñoo ko génne woon def na 70 logements 70 logements bi tubaab bi nga xam ne moo nekkoon. Euh, directeur adjoint maanaam mais quoi moo doon directeur général bi mais tubaab bi moom directeur adjoint la woon moom moo def listam circulaire am ne léegi ku bugg jël ci cité bi nga bindu loon suñu alal bañ ko bindee dañ ne woon léegi location simple lañ koy def pourquoi ñu def ko location simple c'est parce que sur euh, l'effectif 1200 euh, personnes ñoo fa nekk xam nga 1200 personnes nga bëgg a livrer 70 maisons dafay nekk lu waar. location simple bi ñu ne 13000 francs la maanaam 9000 francs entretien 9000 euh, francs location 4000 francs entretien. la def bi nga xam ne Abdoulaye Wade ñëw na et fekk ñu tam ñu constitué woon suñu suñu kii suñu groupe am suñu awoka suñu bureau. ñuy ci waxtaan di ci waxtaan di ci waxtaan ba yàlla def euh, avocat bi ni daal nañu def benn lettre moom dina bind lettre bi adresse ko ko président bi ñi ñi fay nañ te eh, ñu ngi ci am na ñoo xam ne jot nañu seen kayit am ñoo xam ne aussi jotaguñu. Sotiba donc Cité Sotiba spécificité mooy famille lañ. parce que suñu papa yi ñoo bokk fi ñu daan liggéeyee ñun ñu yaroo fi. yi fi dëkk yëpp ñoo nekk ay bande de copains maanaam génération bu nekk ñooy ànd seen biir jigéen ñooy ànd suñu yaay ñooy ànd donc loolu lañu màggee ci cité boobu cité Sotiba finalement c'est une famille. éducation bon éducation yi nag peut-être ci côté éducation mën na wutee côté éducation parce que ñun fii 18 heures bu mu mësaan jot cité bi pour nga gis fi nit problème la léegi la nii sax ngay dox si biir cité bi di gis ay nit. am nañu juma ak jàkk am nañ fi école am nañ fi dispensaire. nekkin wa ñu nekkee woon ca usine ba parce que usine bi dañ doon wax naan usine u famille la la Sotiba usine u famille la boobu nekkin boo masaana jël congé sax da ngay yàkkamti congé jeex ba nga dellu ca usine ba. te am après ay vingt personnes jëm cinquante personnes ñoom ñoo xam ne xel ñu ngi nekk mbooloo léegi ñoom ñu ne kat du bëggoon créer fu ñuy jullee. bin euh, ki bi nu waxee loolu nag euh, ñoom ñëpp seen xel dem ci imam Kounda Dieng comme que yàlla jamono boobu moo fi nekk boroom xam-xam wax bi moo nekk ak ñoom am ak ñoom kóllëre ñu daal di ko jël def ko imam dans les années 76 77. foofu moom vraiment neexatuloon neexatuloon de ba ko ñeneen ñi jëlee ba ñu commencé bi am ñetti at ñeenti at na commencé affaire bi fii aywa Chérif euh, am nga ci ay souvenirs yaa ngi naan sa koñ la min nga si Sotiba. wala jege na la surtout Sotiba waaw fa la ñuy yeewoo ñu dëkk fa bon ñun entre Gazelle ak surtout Sotiba mooy suñu suñu diwaan fële ci Pikine comme ni ko Habib waxee. Mhm. waaw Habib sax euh, nga wax ñu cité bi sax euh, naka la juddoo. waaw ah, boo seetee tamit Diaw cité bi comme ci ndorteel bi dafa nekkoon benn société bu nekkoon ci diwaanu Pikine début. ci la ki nga xam ne moom moom moo mën euh, société bi xalaat ne société bi màgg na te it ouvrier yi ñoom euh, ñu ngi tolloon ci benn lim boo xamante ni tey takk woon na mille 1200. Mm-hmm. ñu ciy liggéey. mu xool xam ne ñii tey amuñu fu ñu dëkk mu ne est-ce que jotul ñu utal leen fu ñu war a mën a dëkk ci noonu ci lañ yi ba ñu utal leen lu toll ci 70 logements yoo xamante ni ay logements fonctionnaire lay doon mais ci loolu dañ leen ko doon loué parce que boo seetee lim bi takk woon na te 70 mënul ñoo ñëpp tax na ñenn ñi dañ leen ko doon loué location bi ci 13000 lañ ko defoon 9000 yi nga xamante ne moom mooy location bi benn 4000 yi moom moo nekkoon les frais d'entretien ba noonu tamit ci lay dox ba ni nga xamante ni société bi ngi gën a màgg ba keroog ba nga xamante nit mu ngi dem di wàcc maanaam di commencé di tëj ci la tamit euh, kaka moom di tubaab bi di ñibbi ci noonu tamit ci la proposé ñi nga xam ne ñoom ñooy employé ci seen bopp ñu jéem a defar seen kayit ngir ñu mën a xool ana nan lañ leen koy mën a jébbalee ci loolu lañ ut benn avocat ci la leen avocat bi jéem a lijjantil loolu am ak rendez ak njiitum réew mu fi woon di Abdoulaye Wade ba tax na it euh, moom ci boppam it ci liñ ànd def jéego yooyu ba tey euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa cité bi ci atum 2007 2008 ci lañ ngeen jot li nga xam ne moom mooy euh, seen euh, titre foncier yi mhm. te ci kaw loolu tamit euh, ci la cité Sotiba amaat beneen boo xamante ne ñu ngi ko tuddee cité Sotiba extension loolu tamit waral na jamono ji boo duggee biir cité Sotiba au lieu de 70 logements léegi dañ fay fekk li nga xamante ne moom mooy 185 mhm. yoo xamante ni te askan ba tey ñu ngi fay yeewoo mu nekk cité bu mag bu ñu lotissé bu baax a baax yoon yi daal di xaral koñ bu mag bëgg nag sport ndax cité Sotiba lan mooy particulier particularité cité boobu Habib. particularité bi euh, lenn la gannaaw bañ leen laajee ñooy benn famille la famille bi moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo bokkoon entreprise ñoom ñoo bokk tey fa ñu dëkk euh, mat na léegi ñeent fukki at ak ñaar ñoom ñi ngi nekk bokk benn liggéey bokk benn dëkk mu doon loo xamante nit dañu mel ne ñoom ñëpp tey ñoom ñoo bokk ndey bokk baay éducation bi aussi tamit foofu dafa nekk benn ndax ku ci nekk ak ni ngay yare sa doom maanaam tey Euh, ni ngeen doon nekkee ci entreprise barabu liggéeyukaay bi rek mhm. noonee tey la njaboot gi di yeewaale mhm. waaye beneen bi fa nekk tamit moom mooy euh, jumaay cité Sotiba bokk na tamit ci jumaa nga xamante ni te moom moo njëkk mhm. ci biir Pikine ndax ñoom ci seen bopp ñoom ñoo ko sampal seen bopp ndax boo seetee cité Sotiba mi ngi nekk ci bayaal bi nga xam ne mu ngi tuddoon xurnaar ba tax na ña nga xam ne ñoom ñoo daan jóge Seras di ñëw ñoom fa lañ daan dajaloo ci bayaal boobu noonu di julli ci noonu tamit lañ ne tey jot na ñoom ñu samp seen barabu jullikaay ci noonu tamit ci la àddana di dox ci lañ mën a créé waale li nga xam ne moom mooy dispensaire Kër Sër bi nga xamante nit moom moo nekk biir pikin loolu yëpp ci biir cité Sotiba la bokkoon ci noonu tamit ci lañ créé waat benn école boo xamante nit ndaw ñi ci seen bopp dinañ gën a mën a jàng dem di ñëwaat éducation bi tamit euh, gën a mën a yokk mhm. léegi euh, société bi bi mu tëjee Sotiba est que am conséquence ci njaboot yi dafa tey euh, conséquence bi lenn la parce que tamit nakaar la jural ñëpp mm. euh, société boo xamante ni tamit tëj na Euh, ku ko gis xam ne euh, du neex ci xool mm-hmm. njaboot bi tey bu njëkk da nga daan gis da ngay nekk ci société mm-hmm. boo fa jógee sa njaboot moo lay mm-hmm. mën a wuutu mais dañu gis ne loolu mujjuta am ci biir cité Sotiba waaye ndaw ñi ci seen boppam it ñoom ñu ne dañu mujjee takk li nga xam ne moo di seen ceinture mën a remplacer waajur yi ndax ñenn ñi nekkoon nañ ci âge de retraite ñeneen ñi tamit amatuñ woon possibilité ngir ñu mën a insérer ñi nga xamante ne ñoo di njaboot gi waaye teewul itam ñoom boo seetee suñu ñaari yaay yu njëkk a ñu lañ daan dundee démb la ñuy gën a dundee donte tamit li nga xam ne moo di société bi tëj na waaye tamit ngor gi ma nga fa ba léegi ba tax nañu ñoom conséquence économique bi euh, yëguñu ko bu baax ndax am na li nga xam ne mooy union ci biir société bi. Mhm. jàppalante bi mi ngi fa bu baax. très bien merci beaucoup euh, Habib moom la ñu àndaloon ci découverte bi cité Sotiba léegi léegi ñu dem ci politique.